ñi nga xam ne ñoom la seen doom des ci biir ndox mi mu nekk nag lu méttee méttee métti mais waa Fass booy googu de leen dal dal na ci ay gox yu bari Macky sàll bi mu ñëwee ba léegi te moom moo fi waxoon ne immigration clandestine jeex na inondation jeex na lu nekk mu wax ko tey nag la gën a garaaw Barça wala Balzac ji defuñu benn politique de jeunesse boo xam ne dina fi bàyyi xale boo jëlee seeni licence daal jox ko ay borom bët yu sew yi ñu ñëw fii ci biir dëkk bi jël suñu jën yëpp yëpp bu ñu sàndee benn mbaal rek jël lu tolloog ay toni ton ba kenn amatoo benn nappkat amatoo jën mais nu ñuy def ñoom ndox mi lañ xam danañ topp ñu yóbbu seen jën nag ci seeni dëkk suñ pétrole bii gars yi di wax naan ay pétrole bi léegi li bu ko jëlee joxe ko tamit booy toppaat leen kese.